yàlla defal leen jàmm yokk seen sutura yàggal leen fi yàgg yombalal leen liggéey bi barkeel njaboot gi barkeel liggéey bi ñu dugg ci année bu bees bi ci jàmm ak salaam jeexale ko ca jàmm ak salaam yàlla bu kenn manqué loolu laa ni woon danaa ko dugal comme introduction xamal leen ni liñ fi daje ndaje mbégte la ndaje teranga la ndaje euh, delloonte njukkal la parce que yàlla dafa def ñu bokk tool bi ñuy bayee ngeen doon suñu ay kilifa ñun ñu ne ci waar wi ngeen jox lu cër di ñu taxaw di ñu toppatoo ñu ànd ngeen namm benn mbir yeggee ñu ko ñu nangu ko ci nangu bu rafet ñu nit ci suñu xalaat ñu proposé leen ne leen ni loolu ngeen ñu proposé bëggoon nañ ci ànd pour seede askan yépp di loolu ànd nañ ci yéen loolu moo waral drapo bi promoteur yi teg tudde ko ministre bi muy drapeau wu ngërëm ak sant ak delloo njukkal te buñ ko ko joxee jox nañ ko l' ensemble du département. Mm-hmm. lool laa ni woon dinaa ko introduire jox Aline Gueye mi nga xam ne mooy porte parole du jour kàddu gi jërë ngeen jëf. jërëjëf ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant. di commencer par monsieur le ministre euh, fierté la pour ñun tey promoteur ñu ñëw toog ak yow euh, ñun dañuy wax toujours que ni euh, Sénégal yàgg naa am ay ministre de sports. man yàlla dafa def yënguwuma ci làmb rek parce que vice président zone la mhm. waaw bon nawetaan dama ci nekk parce que yàgg naa trop. Mhm. bon gis naa mouvement nawetaan nu mu doyee waar mais doo toog ak nit mu contesté ministre des sports donc ce qui veut dire que ni yaa ngi ci voie bi nga nekk voie bu baax la dañ lay ñaanal yan bi aussi yàlla gën ko oyofal xam ne fii nga fii fii nga nga nga jaar yoon bi foofu la euh, fierté la nag pour ñun promoteurs yëpp ñu ñëw tey àndandoo. jël suñu doolee suñu lépp nii dañuy tudd drapeau ministre de sports non seulement dañ koy tudde drapeau bi mais ànd ak moom wan ko ni ko li nga soxla mooy arène nationale bee ñu def ay milliards dul jeex ba pare ñu ñu ñu àndandoo dem foofu ñu àndandoo dem foofu donc donc ce diir veut dire que ni euh, euh, drapeau ministre des sports bi en même temps jubilé lay doon pour ñu tëjaale ko suñu euh, fii nga xam ni ku ci mas am problème bu ñu ñëwee ci yow. Euh, ni la ministre des ñu ñun kat dañoo bëgg tëgg fii noo mënti def toujours euh, lu positif lañ fiy jëlee loolu aussi ñu ngi koy waat fii amul benn promoteur bu toog fi bi nga xam ne mas nga am problème mu dat non nga ñëw jàkkaarloog le ministre sa problème rek réglé wul dañ dem ba mujj gi dañ naan man man dama man personnellement man ministre des sports jaaxal na ma ñu ne lu tax may leen parce que soo fa jógee rek doo am problème soo soo demee jàkkaarloo ak moom ak loo jaaxle jaaxle boo boo fa jógee sa xel dina dal donc loolu dañ ko soxla trop sport te si volet yëpp noonu la ñu ngi lay féliciter encore de passage si ci euh, ndam lu mag li Sadio Mané am ak li nga ciy sumb yëpp euh, xam nañ ko yàlla na ko yàlla def barke yonent bi euh, suñu drapeau bi nag yéene la suñu àndandoo bi aussi association bi ñu jiital ci suñu président bi nga xam ni ñun ñoo jël buum takk suñu baat jox ko jébbal ko te rëccuwuñ ko mm-hmm. waaw parce que njiit bu mat njiit la ku mat kilifa la waaw moo tax it ah, dajale ay jeunes dajale ay promoteurs ñun ñëpp ñu bokk bëgg-bëgg lu jafe la. ku si nekk tey dafa am li nga xam ne moom ngay wut ñun ñi ñëpp ku si nekk am na looy wut sa intérêt bopp la dañu doon wax promoteurs yi moo si ñoo mënu waruñu mën a daje. parce que ku si nekk intérêt yi bokkul ku si nekk sa yëf da jël di yóbbu sa kër mais tey moom mu ñëw nekk njiit gi ba pare sëgg raam nit ñi def leen lu leen neex président boobu lañu ñu am. donc ñu koy gërëm monsieur le ministre par ma voix nga gën ñu ko dooleel gën ñu ko jàppaleel ci côté boobu. benn crainte rek lañ la am ci aussi mooy si côté sponsoring loolu monsieur le ministre dañoo bëgg société yi nga xam ne ay société nationale la ñu nekk fii euh, war nañ mën a dugal seen loxo jàppale président ci arbitre bi mu def fii parce que waru ñuy tëgg ah, ñuy jël seen alal di tëgg ba pare du ñu am sponsor président lu mu koy defee mën na ni société bu dugal loxoom si sport en général du ma sax làmp en général ñu exonéré yenn taxi loolu dina leen permettre ñoom ñëpp di daw ñoo jàppale ñu parce que du yoon nga jël 32 milliards def ko fenn ba pare ku tëgg tey suba doo ñemee tëgg loolu monsieur monsieur le ministre ñu ngi la si ñaan di la si ñaaxaat bu baax a baax nga gën ñu ci dooleel gën ñu si jàppale comme ni nga ko daan defee. Eh, wax ji gudd na mais ñi ngi jéggalu encore ci kàddu yi. di wax ni daal kontaan nañ trop ñëw fii aussi et ministre ministère bi aussi ñi fiy liggéeyee ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm parce que gis naa ne bu ñu duggee ci salle bi ku ci nuyu rek euh, président rek jaar nañ sa tur wax la ko te loolu dafa dafa am solo. waaw donc boo nekkee si biir kër njaboot gi yéene la jàmm loolu si kanam rek nga mën a jëm. jërëjëf président jërëjëf monsieur xam assiette ca ka ko xam tubaab fakalla masalla son excellence le président Macky Sall na nga yàgg ak moom lool 2005 ba 2020 dafa yàgg 2012 nga tax la mu am ca Fatick am ko ci Sénégal nga bokk ci ñu dem élection locale mu métti lool 2014 nga gagné ko nag mu def le ministre des sports et comme j'ai si l'habitude de le dire vous êtes e ministre et vous êtes l'un des meilleurs ministres des sports. dëgg

di nuyu le président Diouf l'APS e sportive di nuyu le SG du ministère di nuyu aussi le nouveau directeur de la haute compétition monsieur Senghor di nuyu monsieur Fall bi nga xamante ne c'est le nouveau directeur des activités physiques sportives di nuyu madame Diallo la directrice de la formation kii moom war ngeen liggéey ak moom pour wax naa ko làmb ji il faut que nit ñi di daje di def ay séminaire di waxtaan ci chart yi làmb ji su ko day tax coow du am parce que nit bu xamee du coow des fois coow yu bëri ñàkk a xam li làmb ji wax la sax doo ci xam lu bëri euh, ak yeneen discipline yi le directeur des infrastructures moom xam ngeen ko monsieur Sall le directeur de l'administration générale et de l'équipement monsieur Ngom Niang et ak Latif euh, le conseiller comme comme euh, nekk ci wetu Mbaye Jacques ana le conseil occulte là je le vois même pas le... non je parle de Bousobé là donc maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu la presse sportive di nuyu nos amis promoteurs et nos frères euh, ku jigéen ki ci nekk ñëwul Ndeye Ndiaye xam naa xanaa day seetu ah, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di am mbégte recevoir leen defe naa ne suñuy rencontre amul formalité seen une rencontre d'amis une rencontre de sénégalais ñu xam fu ñuy teg seen tànk moo tax suñu gisee yomb xam nga gisee moom ñi war a gisee ku ci nekk bu xamee li tax gisee bi am ñu bokk jëmukaay du am leen lu xejam ci gisee boobu euh, c'est vrai que quand on est ministre bien responsable quelque part on reçoit n'importe quel type de personne on reçoit n'importe quel groupe de personnes des fois nga recevoir ay nit boo doon dund téeméeri at dana ci wàññi juróom parce que naqar nga cay jëlee wala da ngay souffrir le temps de l'audience mais yéen bokk lañ ci quelles que soient les difficultés soo leen di ñëw ku nekk dina liir ci seen kanam ne mbaax ngeen di indi ak rafet njort te defe naa ne loolu loolu am solo la li ngeen def yombul bu avez donné une leçon à l'ensemble des Sénégalais vous êtes des privés chacun pourrait faire lu mu bëgg a def te du wéeru ci kenn mais loolu lépp dangeen ko teg fële dajaloo nekk benn bu Pape Abdou di tëgg ñoom Assane ak ñoom Fallook ñii ngay gis ñuy jaay billet di dugg ak génn président bi bu keneen di tëgg moom ouvrier lay nekk waaw mais Sénégal ngeen foog ne bu ñëpp doon def noonu coow dina am ci réew mi coow du fi am nit ku nekk di nga wutal sa bopp te dinga bokk ak nit ñi réew mi parce que li tax ngeen ànd pour coow du am réew mi la mais ku ci ne li ngay am yaa ngi koy dugal sa poche mais cette solidarité dans la concurrence aussi ça c'est une leçon à donner à l'ensemble des des des de Sénégalais parce que nit yàlla bu leen boolee te ngeen mënoon a juddu ba génn àdduna te du ngeen xamante mënoon ngeen fi nekk ba dem du ngeen nekk ay promoteur am na ñoo xamante ni lii la ñu nekk ñi nekk leneen mais yàlla leen segg ci nit ñi boole leen ci benn nattu boole leen ci ngeen bëgg benn affaire li tax man ne nattu mooy li ngeen di def du forcément la leen di andi xaalis mais amour bi ngeen ci am nattu la waaw looloo mu war a tax nga xam ne mboq ngeen war a nekk par force mais pour moi il faut ngeen am njit mu koy impulser Pape Abdou tout le monde sait que c'est un ami c'est frère yàllaa ko dogal du maa ko njëkk a xam waaye leer na ma ne mën naa ko woo heure bu ma neex te moom itam woon na heure bu ko neex daf may woo. d'ailleurs sax des fois mu romb ñu ne Matar Ba romb foofu moo tax ma wàññeeku tuuti pour que ñu mun ñoo ràññee maa ngi yow <laughs> parce que des fois dañu jàpp ne man la xaw ma trait de ressemblance lan la nag mais des fois ma romb fenn ñu ne Pape Abdou Fall man leen dem leen wëri ko du moom mais kii ministre donc da ngeen nekk nit ñoo xam ne da ngeen di compter ci li ñuy def muy le développement des sports plus particulièrement de la lutte qui est notre parce que c'est notre discipline ngeen nekk ci di ci góorgóorlu sans yéen il peut pas y avoir au début et la fin du développement de la lutte heureusement vous l'avez comprendre ngeen ko bu baax a baax ba ba bu du ngeen bàyyi ko kenn daw fi ku nekk dundu na fi loo xamante ne boo fekk loon nga bëgg yëf yi am jom nga bàyyi toog defi leneen man loolu xam naa ci dara parce que nag euh, ci dëkk bi laa dëkk te jaxasoo na ak yéen des fois nit di dem damay toog fii am yërmande ci moom parce que damay xam ne li muy def nii yëpp coono rek lay nekk waaye mu ngi bëgg a bëggal ay milliers de sénégalais yoo xamante ne bu amul ñu am naqar moo tax bu fekkee ne ku bëggal nit ñi dem àjjana yéen a jiitu àjjana parce que coono bi bari na perte te bàyyiwu leen yéen a ngi ci. kon maa ngi leen di sant di sant Pape Abdou di la encourager je sais que c'est pas facile d'être dirigeant surtout ni ngeen bindoo. mais fexe nga ba tey xeeboo kenn ci ñi toog fii parce que koo fi xeeb mu demal boppam réew mi moom bul sonn kuy am ak ku am dépense ak ku amul dépense yëpp koo fi xeeb mu balaak say bagage dem yoonam mais boo yemalee ñëpp ku nekk nga jox ko sa cër ñëpp nekk say baay faal di la défendre di ànd ak yow di def je pense que ça c'est ce que tu as fait et ça bu doon dañuy décerner diplôme manager dañ lay jox diplôme manager c'est pas facile cet engagement moo tax continuer noonu euh, moment bi difficil na mais jàpp naa ne fi ñu jëm pour tontu la doléance par rapport au sponsoring d'abord par escalier lay nekk. te ne mooy déterminer li ngay wax parce que fonds bi ñu bëgg bëgg ubbi bu ñu ko amee képp ko am projet sportif te projet sportif tëgg làmb ci la bokk di nga mën a lever ay fonds def ci li ngay def ba pare delloo solon les modalités yi nga xamante moo fi nekk. loolu bu ñu ci d' accordé ba état bi d' accord ko ba mu jaar conseil des ministres dem assemblée nationale ak yëpp ba mu jàll ci la ñuy dugal lii ngay wax ba nga xam ne y' a des produits yoo xamante ne ku ko jaay da am pourcentage bu ci dugg loolu day capter des fonds pour diversifier les sources de financement pour ceux qui aujourd'hui ont des projets sportifs donc foofu c' est un loolooy liy régler définitivement question mais avant loolu waxoon naa leen ko bu ma leen mujjee nee naa leen cibler leen ñi nga xamante ñoon bokk ci làmb ji man danaa jël ci sama jot ànd ak Pape Abdou Fall ak ñi mu war a àndal dem seeti ñi jiite kër yooyu defe naa ne bu ñu bu ñu defee loolu ñoom dinañ xam ne li ñu def fulla la ak fayda ñi ci mën a jàppale kilifa réew mi ba nit ñi parce que réew bu amul épanouissement day toj nit ñi ñëpp kenn mënul satisfaire seen i affaire waaye nag épanouissement gis nga ay concert ak ay làmb ak dafa bokk ci dundu doomu aadama parce que doomu aadama bu amul lu mu def toog rek ak ay jafe-jafem bu yàggee day exploser mais nit ki bu mënee dem ci li mu bëgg féexal xolam mais day tax yu bëri mu mën ko muñ pour mën a dem de l'avant moo tax mënul ñàkk ci ci ci ci ci moo tax c'est une obligation pour ceux qui investissent d'ailleurs dans le pays d'accompagner le secteur sportif parce que muy football ak muy leneen ak leneen ak yem ñëpp dafa war a nekk obligation ñu jàpp ci pour gunge gunge gunge sport defe naan nag loolu bu ñu fay dem il faut aussi ñu am taxawaay boo xam ne dinañ mën a convaincre nit ba liñ leen di reprocher parce que nit ku bëgg a daw day ut lu mu la taqal na ngeen fexe ba liñ leen di taqal bañ a nekk parce que ñu bari boo waxee ñu ne na sponsoring te boo waxee ak ñoom li nga war a def duñu ko def mbëri yi boo leen ne solal blouson ba du ñu ko sol boo leen ne mais yooyu leen taqal su ñu demee nag ba mën leen a capté waat il faut que mu am rigueur dans la gestion li ma leen di wax loo gis dafa am charte et il faut savoir appliquer les textes loolooy tax d'ailleurs ñu respecter leen yéen ba tax ñi leen di jàppale du ñu am lu ñu rëccu mais aussi ngeen am poids sur acteurs yi mooy lutteurs yi bu boobaa yëf yi dina dellu si waat yoon à la couleur ligne les sponsors vont revenir ils n'ont pas le choix ils n'ont pas le choix parce que la dynamique bi ñu nekk nii président de la république jël décision di investir dans le domaine des infrastructures sportives dafa nara pouse nit ñi ñu ñu ñu investir ci lu mel noonu surtout sociétés yu mag yi fi war a ñëw ak yooyu mënul ñàkk il faut que sponsor yi sponsor yi dellu si mais pour le moment cette année je me propose de vous accompagner partout avec des rendez-vous ci boo xamante ne mën na nekk ñu dem convaincre leen xanaa bu dara amul it robinet bi bu xanaa dina xel li tuuti bañ a tëj completement bu mun ta ubbeeku completement am lu toq tuuti ah, su ko defee ñu mën leen a ñu mën ñu mën cee jàpp leneen li may wax mooy euh, décision bi ngeen jël defe naa ne làmb ji ngeen tëgg wax naa ko ci bu bare bari njàngat la parce que réew bu amee acteur yu bokkul gis-gis il faut ñu nangoo nekk dans la concertation waxtaan moo tax ngeen jël décision ne li ngeen ñu doon proposé pour ñu dem arène nationale d'accord nañ su waxtaan amuloon mënul am même bu ñu ko fermé parce que man li may bégloo du appliquer samay samay pouvoir mënoon naa xëy rek Iba Mar kenn dootu fi tëgg c'est nii ñi bëgg a tëgg dañuy dem fële mais loolu dafa dul loo xamante ne jàpp ma ne loolu ndam la ci ñun nit ñi nga bokkal mbir da ngay jël temps waxtaan ak ñoom ba ngeen déggoo te comme làmb ji déggoo lay firndeel loolu it leçon lañ ne war a jox sénégalais yi ba ñu xam ne ñi bokk secteur dañu war a waxtaan pour trouver des solutions yoo xam ne day arranger toutes les parties et ça c'est extrêmement important c'est pourquoi c'est un symbole tudd nañ ma làmb pour ne pas frustrer mon jeune frère et ami assan làmb ju ne tudd nañ ma ko mais làmb ji jox naa ko fulla fulla gu fulla gu réer yi parce que communication bi ñu ci mën a def bokkul ak làmb yi ñu daan def bii ñépp ko bokk mais dañ ci jàngal aussi sénégalais yi xam ne li ñu bokk dañ ko bu ñu ko waxtaanee rek du am benn jafe-jafe nit ñi dinañ comprendre euh, moo tax euh, je voudrais saisir l'occasion pour féliciter aussi remercier la 2STV muy jël décision ñëw ne dañ koy wone en direct pour nous accompagner 1000 francs nag jox ma leen ko nga xam ne du ma leen jox dañ ko participer ci journée bi loolu mënuñ ñàkk gërëm El Hadj Ndiaye madame Ndiaye ak tout le personnel de la 2STV pour ñu ñëw ci làmb joo xamante ni làmb simple la loolu bokk na ci li ma gën neex parce que ñi ci nar a bokk ñooy bari sama mbokk séeréer yeeg ñëpp dinañ ñëw dégg naa ne sax yokk nga mise bi 3 ngeen ma waxoon mais léegi 5 la. waaw mais dina ëpp cinq il faut ñu def ko mu nekk loo xamante ne ni eh, nañ ko def six rek su ko defee mu yokku mu gën a neex ci mbër yi parce que c'est une fête c'est une fête il faut que les gens se sacrifient pour les autres pour que ça soit une fait de la jeunesse donc maa ngi leen di sant ci loolu di inviter l'ensemble de mes amis et des sénégalais sportifs eh, li ma jaaxal mooy est dinañ fa xej C'est ça le problème. Donc, parce qu'on donne rendez-vous à tout le monde ici au ministère des Sports à de 16h, pour que 16h30, 17h, parce que man bëgguma ñëw mu guddi dañuy ñëw bëccëg toog fa nag ba mu jeex pas ay ñëw toog nii dem dem fenn dañuy ñëw man ku may gunge na nga ñëw toog ak man ba mu jeex waaye gunge ma ba stade bi retourné man ñeme naa ci yoon wi moom y a moom kuy ñëw na toog ba mu jeex. ñu ànd ñibbi ku mënul it man danaa dema sama bopp te balaa ma fay jóge mu jeex parce que c'est ça aussi loolooy war ma eh, mérité nañ ko ñuy bëri mérité nañ ko mais geste bi promoteur yi def mérité nañ ko moo tax làmb ji ngeen ma tuddee delloo naa ko le président Macky Sall parce que bu ma fi amee ndam moo ma fi teg su ngeen ma mënee ma mënee liggéey ak yéen su ma faluloon fii dinaa leen xam peut-être waaye duñ fekk liggéey bi donc lépp dañ ko koy delloo di ñaan yàlla yàlla defal ñu ci ndam e, yàlla def it bi ngeen koy def dafa fekk moom mu ne dialogue national defe naa ne yéen lii wane na ne dialogue national bi am na njariñ parce que dialogue moo andi lii ñuy war a def sam e, dimanche le 12 loolooy wane ne Sénégal mënul te lalu fenn lu dul ci waxtaan quelle que soit position nit ñi des fois sax nit ñëw jox la loxo mer ba du la xool waaye bu ngeen toogee waxtaan bu ngeen di ñibbi da ngeen di langaamu joxante loxo dem. il faut pas avoir peur de la discussion c'est la concertation qui nous mène vers les résultats positifs et je vous encourage en tout cas et je vous félicite d'être euh, choisi comme euh, parrain de cet événement et c'est avec beaucoup d'humilité que je reçois ces félicitations et ces encouragements je pense que ça permettra aussi à mes amis et collaborateurs de continuer dans cette même dynamique l'humilité et l'efficacité dans le travail. Et c'est ça, dans la concertation, qu'on peut arriver à concrétiser tout ce qu'on comme objectif. donc ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di am mbégte xam leen te leen wax ne nag liggéey bi day soog a commencé. tout ce qu'on s'est dit on le fera et puis dinañu continuer liggéey te arène bi it ngeen xam ne yéen a ko moom yéen a fay tëgg yéen a ko war a préserver yéen a ko war a yiir. képp kuy yàq yéen ko parce que am na ay caméra de surveillance ku fa ñëw di def lu mu war a def mais on peut le prendre ça aussi il faut que ngeen xam ne seen uti la balaa ko kenn di ndamoo yéen ko war a ndamoo ku ko bugg a yàq it daf ñu war a am fas ñu def ak moom pour que li nga xamante dañ ko doon wut ba am ko ñu bañ ko yàq kon dénk naa leen ko directeur des infrastructures en attendant ñuy nommé ña fa nekk. dénk nañ leen arène bi parce que yéen a fay nekk yéen a fay organiser kon loolu laa bëggoon wax di gërëm euh, l'ensemble des acteurs de la lutte di profiter di gërëm l'ensemble des stars de la lutte VIP yeeg mbër yu mag yeeg yu ndaw ñi parce que gis naa ne communication à outrance ngeen ci def ku nekk def na ci ojo ku mën a ñëw danaa ci kontaan waaye ku ñëwul it def nga li nga war a def parce que wax nga ci lancé nga un pour que nit ñëw muy les lutteurs nekk les amateurs de lutte comme du jaaj Deko aussi def na ko ak ñëpp manager yi gis naa Babou def na ko mbëri yi ñëpp daal artistes yi eh, ñoom wuli wuliwaat <laughs> ñëpp def nañ ko parce qu'il m'a demandé de mieux attraper la lutte la donc il faut que ñu gën a attraper la lutte <laughs> après jàppal même même ñëpp ci jàpp daal man daal maa ngi leen di sant surtout vous la presse sportive yéen ñi jàpp ci làmb ji ba mu yegg si fii yéen tamit dañ leen di sant suñu làmb ak tous les sites Leewtoo ak la lutte Lutte TV mënuma leen site yéen ñëpp mais yéen ñëpp a bokk remerciement yi parce que bu ngeen ci jàppaloon aussi fi làmb yegg si mën na faa bañ a yegg si yéenay tax ñu xam lépp yéenay analyser lenn rek laa leen di ñaan mooy fi ngeen nekk dafa am solo te soxla ku la jàpp ku ci jàpp jàpp ci nag ci wàllu journalisme mooy boo gisee dëgg wax ko te bañ a nag toog sa nekk xalaat ay mbir di ko wax journalisme li ñu laaj mooy su alerte jotee nga alerte mais boo gisee lu baax it il faut le magnifier c'est ça qu'on a on a besoin de ça pour développer la lutte te yéen a ngi ci moo tax dañ leen ci sant di leen ciy gërëm di leen ñaan gën a vigilant gën a yokk parce que seen fi ngeen nekk moo sensible li réew mi yëpp bokk ngeen nekk làmb ñëpp a ko bokk amul ku fi nekk bokkul ci làmb parce que Sénégal moom moom làmb li ñuy def Sénégal la am. te ñëpp nag nag d'accord ñu ci am na ci ñoo xam ne waaye làmb ñu ne che commencé koo tuuti man li ma jàppe loolu mooy complexe la parce que ku mën a tàccu football mën a tàccu làmb ku mën a fecc ci Michael Jackson bu Youssou Ndour fee fe wéyee boo mënta fecc nga nga toog jàpp sa ñaamur bañ caa wax lu ñaaw waaye bëgg a yëkkati la lay wàcce lii mënul nekk moo tax ñu may tudde le ministre de la lutte mais léegi commencé nañ maa nangu nee nañ ministre football la mais euh, li am solo mooy li ñu moom moom il faut ñu téye ko fulla gi ngeen ci am nag laa ci ànd donc maa ngi sant ñëpp encore une fois di leen gërëm wasalaam. Ah